Real ak Barça. Mhm. moo am ci jamono ji actuellement muy ki nga mhm. xamante ni mooy euh, Sidi Diop ñu gis ni génnee na fi clip jamono ji mu ànd ci Queen Biz waalee ngi côté bale moom ak Viviane mhm. derby boobu yaay booy noo ko jàngatee. <laughs> waaw ni ma koy jàngalee mooy am na koo xam ne dafa yor volant bi waaye ki dend ak moom bëgg naa jël volant bi ci moom. ku yor volant bi. moment bi Wally Seck moo ko téye ci kaw. man xam nga ñoom ñëpp samay doom lañu man ku ma xam xam ne man damaa tëddee njaaxaanaay man ndey ji seex laa mais moment bi Waly Seck moo téye volant bi te Sidi jóob am na droit ñëw bëgg koo nangu ci loxoom nangu bi nag du yomb dinañ dendandoo de muy dawal muy xool waaye nangu bi du yomb parce que damay gis ne ku nekk sa yoonu bopp nga am te kenn mënta yàqal moromam la muy daw Sidi Diop dafa nekk ci voie bu baax Waly Seck da ko lu bëri nit liggéey boo gis war na mën a am concurrence bu rafet te damay gis concurrence bu rafet moo nekk foofu noonu. nii nii rafet na nii. waaw dafa rafet. Hmm. tey bu Feeling Dakar amul woon beneen site amul donc Feeling Dakar kenn du xam man manam dañuy def rek di tëj non Feeling moom fi mu moom. waaw xam nga ni léegi nangu nañ xam nga léegi ñëpp nangu nañ ne. waaw Feeling Dakar moom mooy. fi nga xam ne moo wóor. waaw loolu moom Feeling Dakar moom moo wóor kenn naat wu ko. waaw loolu moom ku nekk da nga pirate waa kay ku mhm. nekk da ngay pirate. Mhm. ñoom Youssou Ndour waxatuñ leen mais waxtu bi Wally sekk dafa nekk ci kaw. Mhm. moom mooy mooy làbbali fas baa ca kanam mais ñi ci des dañuy am seen intérêt mooy boo gisee kuy làbbali ca kanam dangay xool nan la fasam di dawee nga xool sa fas war koo mën a dawee pour nga dab ko mais ki bëgg lu baax day seet ñi bëgg lu baax mu topp leen mais est-ce que rafet na est-ce que tey jii nii euh, Sidi mënu woon jël yoonam bu waree génnee clip génnee ko Wally bu waree génnee clip génne pourquoi tout le temps muy am toppalante bi. waaw xam nga Wally dafa ñëwoon fekk Youssou Ndour muy daw. Mhm. mu ñëw dab ko romb na ko. waaye fi tey roi du mbalax. Youssou mhm. Ndour la ñëpp di wax. Mhm. mais Youssou Ndour wàllam wéy na day accompagner rek. Mhm. mais fi mu nekk nii waalee nekk ci kanam. loolu ku ko nangoo ku ko bañ yëpp xoolal mbir mi ci loxo Waly Seck lay mujj dama leen koy wax tey nañ ma bàyyi xel bu baax. Waly Seck téye na affaire bi ci loxoom macha allah sama xaalax yi na. ko ci loxoom ba pare ci loxoom rek lay mujjee bu ko gëmee lii la bu ko gëmul lii la man Aïssatou Penda Diop maa ko wax loolu man soxna Aïssatou. téye na ko ci loxoom na ko gëm ni ko gëmul tam nañ ko gëm ngir tey ak ëllëg ci kàttanu suñu borom fekk yàlla mu ngi koy may gudd fan téye na ko ci loxoom waali star la star mooy biddéew biddéew bu kawe ca kaw mhm. dafa bokk ci borom biddéew yu kawe yi mhm. donc téye na ko mi ngi ci loxoom mu ngi ko téye loolu nañ ko gëm ku ko jege ku ko xam ak ku bu bëgg xam na nga bàyyi sa bët xel nga xool waali sekk yàlla na ko yàlla lafal cat dañ koy ñaane yàlla gudd fan gi mu bëgg dañ koy ñaane yàlla may ko ko dinañ teg bët loolu Wally Seck menn ngay gis mu am invitation walla ñu mu war dem fenn wala mu bëgg dem fenn mbooloo topp ko Wally am na ñoo xam ne da du ñu stafam mais fu mu dem dañuy bëgg di ko topp da leen jaral ñu dagg seen billet topp ko mm-hmm. Sidi Diop mi ngi ci yoon bi mais eggagul foofu mais quant à Sidi génnee Wally génnee loolu c'est tout à normal mais xam nga ni ñu koy defee jamono ji parce que bu njëkk ba ñoom papa Youssou Ndour ñoom papa Thione yàlla na ko yàlla yërëm mag ñi dañ daan woy mu rafet des fois ñu bokk seen def duo gis nañ duo euh, Omar Pène def na ko Youssou ñoom Thione et cetera mais loolu est-ce que mën nañ ko xaar ci jamono ji entre ñoom ñiy def bien sûr que oui gi nga nit ñi ñoo sonn rek ñiy commentaire ci wet gi mm-hmm. ñoo comprendrewul oh. gis nga ba ci mbër yi ba ci politiciens yi bu ñu wéetee doon benn benn say la takku kinkili baa la takku naanaa la ñoom dañuy nekk benn ñi ñiy commentaire xam nga li koy neexal mooy concurrence dafa baax loolu génn nañ ci domaine mystique bi wax naa li may wax ci benn côté gi mais concurrence daa baax tey waali bu nekkul woon ni am na ay noon wala am na ñoo xam ne ñu ngi ko mu leen bàyyi xel ci wet gi góorgóorloom day des boo xoolee waali sekk cinq ci kanam ak waali sekk léegi dafa wute du ñu benn boo gisee Sidi Diop cinq ans ci ginnaaw ak Sidi Diop léegi nekkuñu benn lan moo waral lool du bëgg avancement. Mm-hmm. mais moment moment bi Wally Seck macha allah téye na ko te moom saraxam daf koo war a def ci géej gi heure bu ñu gisee nag ku ko jege dinañ ko ko wax téye na ko ba pare du ko rëcc mais dina gis ay gàllankoor yu bari. mais saraxam dafa kon fi Youssou Ndour taxaw. déggoo ma ne Wally Seck téye na ko ba pare Youssou Ndour kenn waxatul ay waxam wàllam dafa wéy jeexal na ko. parce que boo demee wooy ba am soixante et quelque la amatoo dara looy dese doo prouver dara mais moment bii mm-hmm. actuellement Wally Seck mooy la chanteur du peuple nañu nangu lool kon man ni ma nekkee la voyante du peuple rek heure bii tey macha allah ci barke Cheikhu Tidiane yépp ma nangu. effectivement ku ko bëgg ku ko bañ yëpp danga may nangu loolu la suñu borom def. Mm-hmm. loolu kenn mënu ci dara. te ku ko yéex a gis ak ku ko gaaw a gis moo ci yem danga koy teel a nangu balaa ngay toog am lu bari la rëcc man dama ko daan wax samay xarit ami d'enfance ma ne leen di ngeen toog bis boo leen ma bëggee gis sax da ngeen di da ngeen di ran ñu may reetaan xam nga yëfi xale rek ñii di ma saaga di ma tooñ ma ne la ay ca dinañ dem ci guddi yooyu wallaahil azim dama koy waat ci mbarki laa ilaha illallah dama ko daan wax samay xarit dama leen daan wax di ngeen toog jamono da ngeen bëgg a gis day jafe léegi toll naa ci jamono boobu man lii may def du dal ci man dama leen ne Wally Seck nañu xam ne téye na affaire bi nii ci loxoom heure bu ñu gisee ku ko jege dinañ ko wax lan mooy saraxam gi muy def ci géej gi mais téye na ko heure bi kenn bu soobee yàlla ci kàttanu suñu borom ak ñaanu ndeyam bi koy wallu ak waajuram mu sonn Wally Seck lu mu bëgg suñu borom antal da koy antal lu lu mu laal moo gën lu mu laalu wallaahi azim man nag ñépp samay doom lañ Sidi Diop mi ngi ci yoon bi may eggagut eggagul mais tey jii nii ngeen ñoom ñaar xëy na entre ñoom ñaar ci kaw sax mën nañ bañ am problème mais fan sii nekk ci suuf di jaxase. mais loolu moo koy neexal xam nga tey. Ah, site yëpp mi ngi nii Feeling Dakar a ngi nii làbbali ba jëm ca kanam macha allah yàlla na jëm kanam. mais yeneen site yi neexu leen. Mhm. gis nga bu noonu nangoo rek seen pexe jubut. mais bëgg ak bañ Feeling Dakar mu ci kanam bëgg ak bañ Wally Seck moo nekk ci kaw ku mu neex ak ku mu neexul. Sidi Diop tam dafa bëgg dab maan il faut mu daw day daw lu sore doo a egg. mais moom tamit am na am nga saraxam pour mu. bu baax parce que man li ñuy def ni man ku bëgg jëm kanam man laa àndal ku bëgg sa réew jëm kanam moom laa parce que Waly boo seetee li muy def ci social dafa bari man nag lekkuma dërëmam ñaanuma kenn man sama liggéey moo ma teral sama ñaanu waajur damaa wallu li ma nekk sunu borom da koo barkeel. man xaaruma daraay kenn mhm. yàlla rek laay xaar te bés bu yàlla ñëwee waxtu lu ma bëgg maa ngi ciy faj di ci fajal ay doomu aadama kon man waxuma Waly Seck lu ko neex waxuma Sidi Diop lu ko neex waxuma Viviane lu ko neex man lu may wax rek yàlla laa ci jiital ndax loo wax rek ëllëg danga koy waxaat mbiri àddina nañ def yëfi àddina bu jeexee ni ñuy boole di ñaan rek suñu borom baaxal lépp rafetal xol yi setal ko mais Waly boo ko gisee da ngay xam nitu kese la ba nga nit ki la gën a jege xolam mooy ki nga waxee bu waxee rek rongoñum génn kooku nit ku jege yàlla la nit ku jege nit bu ñu seet chanteur la wala dara la bu ñu seet mbubb bi mu sol woykat bi mu doon dañuy seet fond lan la parce que téléphone mën nga am habillage Samsung. Mhm. ci kaw fekk ñu dugal la la ci moteur boo xam ne moteuru iPhone la. Wally sekk noonu la mel nañ bu ñu seet habillage am jëmmam mii nee nañu seet fond Wally sekk lan la. lan mooy intention Wally Seck ci musique bi nga xam ne daf ci jublu ak lan la ci bëgg bu doon am rek yemale ci boppam na koy def mais da ngay gis buntu kër Wally Seck ñun sorewul ak moom gis nga ni muy mel ak ay nit. Mhm. bu doon te nit du jàppale nit ñi wala du am action parce que da ngay gis ay détracteurs yoo xam ne dañuy wax Wally lii Wally lii Wally lële te du teree day continuer di def ba tey. à l'ombre la koy defee nit ñi rek ñooy bind mais Wally Seck musul dem fenn ne leen filmer leen ma. wala damay may kenn mais fu mu dem saar la dañ koy topp. Mhm. action yi ci lañ koy xamee mais li muy def te duñ ko xam dafa bari daf koy def ci ay mbokkam di ko def am ñoo xam ne sax xamu leen mais jàppoon ni euh, bu demee ba à la longue musique sénégalaise mën na yàqu dans la mesure où tey euh, boo nee musique sénégalaise euh, entre peut-être benn cercle lay tourner comme li Queen Biz doon wax temps wu Coupe d'Afrique bi ne daf musique bi dafa am benn cercle bu muy tourner entre papa ak doom ñu ñeneen ñi est-ce que dinañ am porte kon pour mën a. bu fekkee ak doom ban. moom moo noonu la ko waxee ah xaw ma exactement kan la ci doon wax mais mu ngi doon. parce que Youssou Ndour moom buñ ne kii amul benn benn benn doom boo xam ne war na ko mën a doon koo xam ne moo koy topp am na ay bërëbu liggéeykaay nit ñi mën a jëriñoo. Mm-hmm. waale itam xëy na papam mébétam du woon muy woy papam wax na ko. Mm-hmm. bu doon sama sago sama doom footballeur lay doon mais lii mooy destin. Mm-hmm. xëy na la mu ko bëggoon yóbbu mooy la may wax sànq rek yàlla delloo suñu waat kàddu yi moo tax dëgg yàlla rek moo ko moom. moom bëggoon na Waly doon footballeur Waly dem na ba benn moment yàlla moo ko leeralal buntam fan la war a jaar muy topp ay papaam yu ndaw di sàccant du musique ba tey lii moo ko may kàttan gi mais bu doon papaam rek moo koy pousse du ci musique la koy pousse muy dem. parce que mm-hmm. am na ay ndëgg sërëx yu bari yu ci nekk defante bi ba ci mystiquement da cay am. mais mais mais musique bi laay laay ci laay ñëwaat est-ce que bu demee à la longue du yàq bu fekkee saa ñu bu dee musique. dañ ko yemale ci Wally Sidi Diop Queen Biz Viviane ñeneen ñi ku ku mën ku mën na def ku mënul na toog yàlla nag jëlul ñëpp teg leen ci premier hmm. premier kenn rek ku koy jël deuxième am troisième am ñeneen ñi ku ci mën a prouver rek defal parce que àdduna moom dafa yaatu ku nekk ak suñu borom dalaa may xel may la kàttan làbbali safas mu daw bu baax concurrence moo tax ma ne hmm. lépp loo gis dafa am concurrence biddéew yi dañoo dañoo dañoo sutante ba ci kaw asamaan da ngay gis biddéew fii gis bii fee gis ba fële nit ñi tam noonu la ñuy rawantee mhm. il faut am ku jiitu am ku topp mais pour le moment nii mhm. Wally moom moo téye relève bi fii musique Sénégal alors boo xoolee léegi milieu showbiz bi euh, yan yan lan lan nga ko jàngatee yow ci mystiquement lan nga waaw concurrence dafa bëri rek concurrence dafa bëri coow bëri cat cat ak làmmiñ Wally buy musu rek na mosu ci cat waaye bu dee ci wàllu wërsëg macha allah sunu borom taxaw na ko du question lu ñuy gis am amam mais li ñu ñëw ci kanam moo dàq lii mu jot am mais nag day metti torop ci moom. Mm-hmm. na xaar lu nekk tam xeex bu nekk nag mu ngi ci kanamam na ko xaar. gars koy xeex. il faut que mu nekk nit ku foor benn moment Wally Seck bu dee am ngeen ko ko jege. Mm-hmm. moom xam na ne amee woon na tànk buy metti tànk buy metti waaw. loolu révélation non non nañu nag ko jege woo ma wala moom mu wootee mën na ko dëggal bu daan dëgg tànkam bi nii da daan metti dama leen di wax ne man sama vision fu mu toll damaa bëgg rek ku ko jege wala moom mu wax ku ko jege mu wax mu woo ma téléphone nopp ak bët ak nopp ñu wax est-ce yaa ngi may dégg. Mhm. man li may wax dama koo teg fu wóor man waxuma ay waxu wayaa wayaa. wala waxu ay jamono tànkam da doon metti te loolu def def la woon. waa moom dañ koy jéem a jógal mystiquement mais lu ñu kii rek affaire bi këpp yalwaan ba day këpp waa nañ ko génneel leketu dugub ba mu fees ñu jaxase ko ak ceeb dugub ak ceeb mhm. bu dee yaayam la walla ay jigéenam nañu seet leket bu mag ñu jaxase dugub ak ceeb ñoom ñaan ñaar ñëppay tolloo poids ñu saraxal ko ko leneen li ci des ci géej la bugguma ko wax lii ci wàllu mbirum wërsëgam la rek dina yor bay jox ku nekk lu ne ba doyal lu bëgg ci wërsëg li ñoom Youssou Ndour daw ci ay at di ko am moom nii ci jeunesse am mën na ko am Youssou Ndour dem na ay at doog a doon milliardaire mhm. mais Wally Seck dawul lu toll noonu wërsëg yamul am na mais leket bi leket bu bees bi nañ ci def dugub ak ceeb ñu soit ñu def 7 kilo dugub 7 kilo ceeb ñu boole leen ñoom ñaar ci benn leket sarax ko kenn rek ku néew doole. pour moom pour kaaraangeem moom kaaraangeem waale mbokkam ñu ñuy seetaan xam naa ne du ñàkk dinañ ci bàyyi xel dinañ ko ko wax te aussi dina dinañ la nga gën leen ci jox ay leeral. leneen li nga xam ne dañ ko war a def ci géej bu jegee dinañ ko wax lan la war a def. da war a ci géej. bu ko defee lépp loo xam ne doomu aadama jéem na ko rek bu soobee yàlla xaw ma day jëfru xaw ma lu muy def waaye àdduna bi yëpp dinañ ci teg bët. très bien parce que am na ñoo xam ne mhm. jotoon nañ ko tàmbali waaye fi ñu mujjee nit ñi gis nañ ko man. Euh, taalibe cheikh laa mhm. man am na ci yoo xam ne duma ko laal ci lu tilim duma ko wax ci lu tilim kon lépp lu may wax rek damay jiital suñu borom ba pare teg ci vision bu leer ci kàttanu suñu borom kon waxewu may daray intérêt mhm. parce que maa ngi sant yàlla bu baax di sant samay ñaari jur lu ma soxla fu ma toog fa la may fekk très bi am na ko tudd Ahmadou Kane nee na mu ngi dëggal li nga wax moom mu ngi ba Bruxelles nee na lépp loo wax dëgg la c'est la vérité moom da koy confirmer mu ngi ba Belgique mu mel ni euh, yàgg euh, waa bitim réew tamit seen liggéey euh, bëri na looy jëflante ak waa bitim réew waaw bëri naa lu muy jëflante ak ñoom parce que mooy li may wax rek man waxu wooyee di du ma ci nekk wax lu mhm. du dëgg nekk ma ci donte dërëm laa ci am boo ma laajee ci dara bëgg ma xoolal ci bu dem damaa la bu ci dugg du dem ñenn dañ lay proposer kaay defal la ci ñaan gi sama tuut te teew moo ma gënal ëllëg ma lekk sa xaas laloo sama ndey jot du bu ëllëgee kenn du ma indil foofu weccet bu ma lay fayee mais soo bëggee dara mën nañ la ci ñaanal bu suñu borom naree antal da koy antal yaa ngi dégg mais ñenn ñi dañ lay tiital au contraire dañ lay tiital tiital la wax la loo xamante ni tey wax la diw dina gaañu wala boo deful lii di nga feebar wala di nga mhm. accidenté am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci internet bu ñu commentaire di nañ leen def nañ leen ko dóor nañ leen façon dóor boobu ba tàyyi wala kaa ñu dem ma woon la sa jinne kaa ñu dem ma woon la sa rawaan yóbbu la ba ca àll beenee mhm. àll bi nekk ci ci ci ci péage bi yaa ngi dégg di def ay comédie yoo xam ne yow mooy loolu fii patron yu bari dóor nañ leen ci loolu ay millions est que yaa ngi may dégg mhm. am na femme boo xam ne man bu ma xam li ñuy liggéey lay liggéey dafa yóbbu ndaw si ba géejub Malibu ku góor la fa yóbbu ne da koy dóor am ku mu waxanteel far kooku ñemewul ndox mu ne ko sarawaana nga ne waaja a lapp-lapp xaw a xaw xaw a lapp waaji poñe ndaw si ne ko jox ma sama xaalis nga am na ci yoo xam ne góor moom ko nañu bàyyi liggéey bu salte bi ñu nekkee nii doxul alors euh, dañuy euh, gis nañ ni moom it jamono ji macha allah ñu ngi koy ñaanal bonne continuation euh, xew na moom daf mel moom macha allah mosoo sax xew bi tout le temps saa bu ñëwee rek dafay ñëw ak benn style bi mu rajeunir nit ñi bëggu ko euh, ñëpp def ko star waaye récemment def na sorti nee na Viviane c'est une star Viviane. waaw Viviane tam star la comme ni ñu koy waxee nekk na koo xam ne am na personnalité am na dignité. comme li may wax. nit euh, liñ naan montre yu baax yi ñoo bokk heure parce que Viviane daanaka on est de même âge. Euh, mën na Wally mën na nekk rakkam comme mën na nekk doomam parce que elle n'est pas si âgée que mën na boppam am na classe am na personnalité te liggéey boo xamee li muy jar rek dangay xam noo koy defee te Viviane dafay génn au moment où mu war a génn. Mhm. xoolal dafay woy ca waxtu mu war a woyee waxtu mu waree noppi mu noppi. Mhm. Sarr noonu lay def te Waali man noonu laa gisee muy doxalee moo tax ma ne la Waali bu amee tuuti conseil lu nit waxati rek na kalm Viviane tam maturité boobu dama ko gis ci moom depuis mu nekk Viviane Viviane doo gis lu ñëw rek. mu mu mu mu lëmbaajoo bokk ci gisoon nañ tey ñi fi defoon demoon ci moo coow leeg cambal cambal ji dafa jël ay ay ay valisam dem wàcc leen fa parce que au moins am na maturité am na personnalité lu muy dugg ci dara kenn ko accam Viviane lu dugg ci dara ba nga ne accam walla ñu jépp ko ci lool tam am na maturité boobu te buuba gungeen ko ci voie boobu yàgg na ànd ak Youssou Ndour ay star yu mag mm-hmm. Viviane ci loxo yooyu la jaar kon Viviane mënul tartari mënul def loo xamante ni ku ci teg bët rek na ak cam nit na moytoo def dara rek ba ñu jéppi la ci. Mhm. te Viviane macha allah mën na ànd ak xale mën na ànd ak mag. liñ naan na Waly Seck xale bu loxoom setee dina mën a bokk ak mag ndab looloo tax fusion Waly Seck ak Viviane mën a jàll. parce que Viviane mën na nekk grande sœuram parce que coon am na doom yu maas ak Viviane. Mhm. moo tax ñëpp naan papa moom yàlla moo ko cërale ñëpp naan papa coon papa coon ba ñi nga xamante ni sax ñoo tolloo moom âge papa la parce que cër la suñ borom moo ko cërale mhm. kon waali bu demee ba set nekk xale bu dal xale bu am yar mën a ànd ak Viviane kon loolu mën nañ ko cautionné war naa mën a ne kon Viviane dañ koy wax macha allah dañ koy ñaanal gudd fan moom it carrière am mënuñu wax ne fii lay yem. Mhm. parce que macha allah boobu ba tey mi ngi doxal bu waree jug bu jugee rek danga naan li mu génne woon moo dàq li li paase. parce que nit tam sa jeunesse danga koy doxaan ah. nañu bàyyi jël nit solal ko benn étiquette Viviane artiste la bu solee dara parce que daf ko war a sol yaramam moo ko jox nañu xam ne Viviane star la. Mhm. donc nekkul comme koo xamante ni tey liggéeyul ci benn métier bu solee tubéy wala mu sol benn yére buñ ko blâmer parce que loolu lu mu tàmm sol la. Sénégal fii dañu yenn idée yoo xam ne xaw na dellu ginnaaw ci benn côté parce que nit li ni mu sentir a def ci yaramam rek bu dee moom tranquille na ci xelam rek mën na ko def mi ngi def liggéeyam bu baax macha allah mi ngi jëm ci kanam te dama gis ni femme bu kii la bu intelligente la mi ngi toppatoo ay doomam li mu war a def tam secrètement mu ngi koy def di def ay aide di dimbali ay pouponnières yooyu yëpp ñu ngi koy seet. ci mais coow li bëri na ci moom moom nag gaadu tontu nag moom. mais saa su ne souvent rek ngay xool loolu mooy def dignité ak personnalité Viviane gis nga jigéen bi baax man côté boobu nawee naa fa mbàcco parce que mbàcco li pënd waaw mbàcco li pënd bi wure yëpp dana tekk dal. coppati gis nga nee na nit boo ne tekk rek tekk wan la yoon. gis nga mm-hmm. wax ji fi mu mujjee lépp fay na parce que dafa ne tekk. Viviane tam li coow li bëri bari yëpp mu ngi ne tekk te mhm. coow li yëpp moo ko waral. Mhm. li woykat bi naan li coow li bëri bëri Viviane moo ko waral mais moom mi ngi ne dégg ne wayal dara yënguwul oo tax ma ne la bërigo yi def du ñu yëngatu. yi mhm. deful dara ñooy gërëng gërëng yi nii bruit bi bëri coow li ci ñoom la féete mooy ñi nga xam ne yoruñu dara. yaa ngi dégg ba ci xaalis ñi yor dëgg doo leen dégg ñu réagir ñi yoru ñaari salaamaaleykum. ñoo fi nekk bëri bruit coow beeg mbaantare mais ñu yor xaalis ba pardon xaalis ba ñu yor mhm. xajul ci saak xajul ci valise kon loolu mënta déplacé wu bañ koy baatare moo tax ñeen ñi dañu amee folie folie de grandeur mais Viviane macha allah dal gi mu daal moo tax sénégalais bëgg ko te gis nga nit dañu fexe bu ko sunu borom cëralee bu ko kenn jéem a wàccee buñ ko jéemee wàccee rek yow mi koy wàccee yaa mujj tuuti nga nee nañ koo xeeb mu yeb la mhm. bul jël sa bopp nga foog ne yaa leen gën def sa bopp maamu du jël nit ñi def leen maama di boo ko defee rek après yow ci sa bopp yaay mujj doon ku waye di yaay doon ci ñàkk personnalité gi jëlal ñëpp def ni sa bopp ba ki ngay jëflanteel soppeeku mel ne neen nga téye sa bopp mais nit ku baax mooy ki ne tekk li tubaab naan méfie-toi de l'eau qui dort mooy ki ne calme ne dégg-déggaaral kooku doo xam lan mooy réaction moo tax nit ñi nañu moytu nit ku noppi ah. koo mm-hmm. xam ne bariwul lu muy yëngu bariwul lu muy wax moom léppam si message la koy passé bu koy def ci woyam waaw génne naa ay single yu bëri. waaw moom boorewul dara ak wax bul dégg tëll ne damm na. waaw moom léppam. ci mhm. message woyam la koy passé donc nekkul kuy xuloo nekkul kuy xeex boolewul dara ak coow. loolu xam naa dañ ko mës a xoolal euh, Viviane maturité boobu. Mhm. nee naa la depuis muy ànd ak Youssou Ndour da koo fekk mu nekk jigéen bu dal mu nekk jigéen boo xam ne bu am vision bu am. opport boo xam ne dafa am bëgg na fu mu fu muy dem daal. Mhm. nga nit boo bëggee li ngay def kenn du la ci forcer. dëgg la nga ki bëgg la muy def lu mu jar da lu mu laaj da koy def pour mu mhm. def ko. Mhm. kon tey Viviane amul fu mu demul ci àdduna bi bëreetul loo xam ne war na ko mën prouver te ba léegi nag mu ngi prouver moom it mi ngi ci kanam ku bëgg dab ko da ngay daw ba sonn nga doog koo jot parce que Viviane déjà age bi mu toll nii lu bëri def na ko àdduna bi fu ne dugg na fa yaa ngi dégg. trophée bu ne jot na ko. nomination bu nekk am na kon balaa ko kenn dabit da ngay def ni moom rek. àdduna biddéew yi dañoo sutante ci asamaan nit ñi nañuy seetlu. Mhm. bu ñu waxee lii du sama wax waxu suñu borom la biddéew yi dañoo sutante bii day nekk ca kaw a kaw bii topp ci yeneen. Mhm. nañu bàyyi xel loolu suñu borom moo bindee noonu doomu aadama yi. kon nañu nangul ñenn ñi li nga xam ne dañ koo doon ñu bañ di leen tëbali wala di leen jéem a tegal ay ndëgg sërëx ku ko def rek après yooyu yaay mujj di jëflu nii di wax ñii. ñëpp di la dégg nga waye di manqué la nga jotoon ci am ak personnalité tuuti day day day day day dem. très bien te ñi la nawoon euh, dañ lay nawati. Mhm. te as gor bu waxee ba làmb boppam dajatu ko rek war naa toog. ñu ngi koy jaajëfal moom Viviane di ko nuyu bu baax di ko ñaanal carrière jàmm Queen Biz ba Waly woowee Viviane Sidi woo Queen Biz Queen Biz noo ko gisee. waaw Queen tamit xaw na bàyyi euh, xaw na wax wax boo xam ne des na ngor tuuti daal. parce que bi ñu ko ooyee euh, ci affaire coupe d'Afrique bi jotoon na def clip nit da ngay fexe wax wax joo xam ne bu ëllëgee boo xoolee sa bopp doo rus mooy li may wax sànq fexeel ba boo làmbee sa bopp nga daj sa bopp mhm. mais parfois di nga wax ba làmb sa bopp doo daj sa bopp mooy di nga wax loo xam ne xëy na looy rëccu lay doon mooy papa ak doom bi mu doon wax non non même pas papa ak doom bi sax bi mu ne moom moom moo njëkk a inauguré stade bi moo njëkk a woy affaire coupe d'Afrique bi foofu loolu affaire mbir bi yàlla la du du waali woowul pour kenn woo ko waxul président Macky Sall na ko woo te bu doon ti ni loolu rek mooy daaneel nit kon waali sekk jam ñaajo bi pour temps ci invité yi la bokkoon waroon na woy préparé woy ak ay nawleem moom na xoolloo rek yàlla ni muy doxalee ay mbiram demoon na ba yaawu ne woy def lépp li ci war te pour temps woowuñu ko waali fii dañ ko woowoon ñëpp di ko xaar te te ni mu waroon demee demewu ko yàlla toujours li gën ci yow rek la lay defal bu demee ba ànd ak Sidi Diop war na parce que ñoom ñaar ku ci nekk am na loo yëg ci sa morom am nga talent war nga mën a dem fu sori mais yenn yi boo amee ngëm-ngëm ne man nit a ma baare te gëmoo ne rek yàlla fi ne nga foog ne ay nit a lay baare xamal ni yow sa sa sa sa sa dem du sori de xam nga lu gën a bon ci doomu aadama ngay daw di gestu wala ngay daw di wokkatu ñaar yi mënta ànd war fas war mbaam wala daw di wokkatu boo koy def rek nga tardé wala nga daanu ci yoon wi nit ñi romb lay daw. ngay rëccu fekk c'est trop tard loolu tam nit nay moytu wax wax dina yàq lu nekk moo tax bala ngay wax na nga seet li ngay wax bu baax parce que di nga wax loo xam ne di nga ko réccu te wax bal la bu xasee ba ne tëf rek fu mu jaar yàq na ko te wax na façon wax yooyu te rafetul daal waane nawleem la frère am la war na mën a tey toog ba benn moment waali yëg ko comme ni ko Sidi Diop woo ko ci wetam. waa kon waruñu fee wax dara lu ñaaw. ba tax na Sadio Mané bëgg na lu rafet yëkkati alal jox ko bañ kenn mer Sénégal ñun ñëpp benn lañ nañu rafetal rafetal rafetoo te bañ a yàqante mhm. yàqante bi dafa bëri parfois nga am intention ci nit lu baax sax mu yaakaar ne lu bon parfois nga yaakaar ni nit am na ci yow intention baax fex am ko ci yow nit ñi dañ lay nax ci ay bët Viviane wax na ko ci ay woyam mhm. dangay dem ba yaakaar ni nit kii moom mooy kilo bëgg fekk la lay rey kooku moom moo la ko nar def nit di la wax dëgg ba nga jéppi ko nga foog ne dalaa bañ fekk moom mooy ki gën ci yow. Mhm. nañu bàyyi lool xel. nit dalay wax dëgg ba nga foog ne sa noon la foo taxaw mu kar la ne la yoon bi nga jëm baaxul nga foog ne mooy sa noon mais ki lay raay raayal di la won ne lii fekk kooku mu ngi la tegal ndëgg sërëx bu mag bés boo naan pëtax ci biir mu suul la bàyyi la fa moo tax euh, mbiri jigéen dafa dafa dafa dafa sew. Mhm. dafa sew. mais heureusement que Viviane dafa nekk koo xam ne macha allah ku calme la nga boo dalee foo teg sa tànk bala ngaa tegaat sa tànk dangay làmb ndax nooy na wala nooyu mais booy tëñëx tëñëxi mën nga gas ba mën nga mën nga dox ba suul sa boppa ah. te am na ñoo xam ne fii def nañ ko ci média yi wax ba suul seen bopp après delluwaat di di rendre compte nit boo demee wax ba yëg ne yow sa wax yëgoo ci sa bopp boo changé wax rek parce que wax ji ci yow la. del déglu del xool.